ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu teewaay bi di dellusiwaat rek di santaat yàlla mi ñu may ndam ci lii jóge fi te dama naan du ndam mais askan wi ñoo ñoo ñoo ñoo exprimer wu suñu li ñu exprimer wu nag man dama naan du wii du noo bi mais lii dëgg lañu wax lii dëgg moo di ay APR si boppam moo ñëwoon bëgg waat wane boppam fii si jaxaw caali su ma nee jaxaw caali nag dañuy dafa am benn tur boo xamante ni dafay dikk ci ñun muy Ousseynou Sène ñu koy sant di ko gërëm fii mais nag jëf solos waxtaan bi dama bëggoon ñu tënk ko ci benn fànn mooy suñu woowee presse bi tey dañoo bëgg senegal njaay ñëpp xam ni jaxaw caali gox la ci biir senegal gox la ci biir Thiès gox la ci biir Thiès Nord te indi nañu loo xamante ni def nañ loo xamante ni kenn mosu koo def maanaam lu lu mës am nag bu amee il faudra ñun ñu fësal ko liñ koy fësalee moo di ñu woowaat ñëpp fañ ko daan waxee santaat fa ñëpp sant surtout nag waa jaxaw jaali parce que centre bu toll ni Gabriel Ndione doo ànd ak ay jigéen ak góor ak mag ak ndaw ñu yàq seeni nelaw 17 jours ñooy di ko campagne ndaw ñi jigéen ñi nag waxootuma leen sama grand ale mbay am fu mu jaar ak ñoom nelawul guddi nelawul bëccëg am na ñoo xamante ne xam nañ ci dara conseil de la jeunesse bi ba mu kiiyee taxawaay bi mu si am am na ñu ma dul weddi tey fii si zone nord groupement booy wax groupe euh, euh, homme de développement Ali mbay na kooku nag du ñëw boole ay kooku du ñëw woos askanu jaxaw caali boole presque 68 groupement groupement bu nekk rek ëpp na téeméeri nit nga ñëw boole leen dajale leen ni leen kaay leen an euh, ma kiite ma jóge fa ma nekkoon fa mu nekkoon mooy fan muy réew mi ñëw ni leen damay jàppale APR te ba muy jàppale APR ginnaaw yàlla Ousseynou Sène tax mu ñëw nag mu ñëw nag bootu si suñu ànd ak ñun ñuy ndaw man ak Mama Diatta ñu def ko comme morom di liggéey ak moom guddi ak bëccëg nelawatuñu muy ànd ak ñun dem naa ba booy sax laa koy wax ñu ànd si loolu jigéen yi nit bàyyiwuñ ñu jigéen yi fu ñu teg suñu tànk ñu teg fa seen tànk lu ñu ànd ñu ànd fa ñuy loué suñu oto jour élection yi gis nga de ni ñu kii añuñu lekk ñu naanuñu taxaw gudd suba ba ngoon pour ñu gañe mais bu ñu gañee ba pare bu ko kenn mbubboo dem taxaw jël presse bi naan mana loolu duñ ko nungu ñun kon bu ñu jékki-jékkee di lire ci benn presse journal de presse lu mel ni l'observateur gis kenn naan j'ai gagné mon bureau de euh, mon centre de vote dinañu tax a jug ñun ndax du ñu liggéey golo bay baabu nduddee looloo tax ma yi man kon bu ñu ñëwee dem ba loolu am dinañ leeral askan wi fi ñu jaar fi ñu jóge mooy fan mooy que nit xaaruñu ba tey muy euh, euh, soxla nit ñi dem fekk ji leen dañoo xëy ak ñoom gontoog ñoom am fu ñu jaar ak ñoom seenu seen jël ay legetam di leen jox ale mbay jël ay tànkam di ko dox ñun ñu ànd ak ñoom di di di ko dox ba tey jii lii fekk si ñu victoire bi nag du victoire seenu seen du victoire gi victoire waa caali la waa caali ñoo yeewu xam ni dëkk bi kenn moomu ko gox bi kenn moomu ko ñun ñoo ko moom ñoo koy defar te amuñu kenn ku ñu wóolu ku dul président Macky Sall jël nag président Macky Sall ñëw ni ko caali mu ngi nii kon bu ñu nee caali nag président Macky Sall caalee ngi nii ku bàyyi ñëpp nag ngir yow da nga koy wutal lay kon laaj na nag jot na caali gis boppam ci nguuru Macky Sall looloo tax nag ñun ñu woote ñun ñu woote di xamal Macky Sall nag ni ay responsable ay ñu ko mën a taxawu ay bureau fu ñëpp perte seen biro de seen centre de vote Gabriel Ndione ay gone ay jigéen ay góor taxaw nañ fa takk ko ni ko Macky Sall euh, euh, Thiès Nord a ngi nii caale euh, ngi nii Gabriel Ndione a ngi nii Diakhao ngi nii ndax fu ñu daan perte ay ay ñaata voix tey ñuy ñëw ñu naan Idrissa Seck fii onze voix la ñu treize voix la ñu fi rawee Gabriel Ndione ñu làpp ko fa quatre-vingt-six voix loolu nag mérité nañu wax ko looloo tax ñu fii nii ma leen di santaat par ma voix di leen sant di gërëm waa jaxaaw caali Lamine Aïcha Fall ay Aïcha Fall ñu naan ko Lamine Ndiaye su ma gisee si Thiès Info laa njëkk a lire gis ko mu ni man maa gagné sama centre de vote alors que añ sax mënuñu koo jox jour élection yo élection yi sama jigéen yi ñu ngi fa yenn mënuñu sax jox añ ku la mënta jox añ mënu laa gunge comité électoral bi def nañ ko ba kii nii dërëmën dugg ci yëkkatiwul ñaar dërëm ni maa leen ko dimbale ñun ñu ba takk suñuy biir ñun ndaw ñu kii nii luwe suñuy oto di jëli nit ñi dem fu nekk ba lii am ndam lii am du ñu nangu kenn di jóge fële mën nga ñëw ëpp rasta nag waaye doo ñu ëpp jom ëpp ñu fulla waaw looloo tax nag ñuy wax lii li ma ko waxee sànq rek Macky Sall dafa jot mu gëstu waa Jaxaaw Caali ci fànn bu nekk liggéey jeunes yi surtout ñun ndaw ñi xëy liggéey jeunes yi daf see war a taxaw Jaxaaw Caali dañoo mérité am responsable am ay financement jigéen yaa ngi nii financement yi fi dugg xam nañ fuñ ko jële ñu ko jaaral bu du woon Ousseynou Sène mi yëkkati legetam di leen ko jox ak Thierno Alassane Sall lii du fi am kon Ali Mbaye ànd di di loolu moom Aly Mbaye ci ànd foofu moom si kanam dina fa àgg mais li may gën a xamal moo di Macky Sall jot na mu gestu waa Jaxaw Caali ci liggéeyu ndaw ñi ci financement jigéen ñi ci gestu lépp infrastructure ñun ñu ngi nii suñu koñ gee ngi lëndëm këris timis bu jotee fii dootoo gis tali amu fi yaa ngi nii ba ngay ba ngeen di jóge fee sonn ngeen ndax euh, problème tali léegi nag du ñu jël duñu la du ñu bàyyee suñu lépp jëndi Macky Sall yaa ngi nii kon nag laaj na moom it mu gëstu ñu ndax ki bañ yëpp ni ma ko waxee sànq ngir yow da nga koy wut ak lay ba durus loolu la wasalaam waaw maa ngi waxee ci cadre APR man je Abdou Fall la responsable politique jeunesse APR no Thiès Nord waaw Massamba Diop ban casquette la non Massamba Diop responsable politique la comme ñun ñun bootuwuñ ci ginnaaw kenn APR bañ koy sos si la ñu ne ba tey nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg di si dox ku ma xam-xam ne APR laa nekkoon ba tey it APR laa ne di si dox suñu frère yi Ali mbay jóge réew mi ànd ak dugg Ousseynou Doucouré Ibrahima Ndiaye ñoom ñëpp taxaw takk te ñooñu ku leen tudd rek ku tudd ñooñu rek waroon faa yam mu indi si ay yoro ñoom seen ba réew mi fii bu demee ba perte ko kon Idrissa Seck war naa xam ni euh, euh, baaw baa bi yëngatu na loolu nag duñ ko def ba pare di ko nax saayal. yëg naa ci yéen mbégte boo xam ne tey su ma amoon asamaan sax dama leen koy wàcceel. waaw parce que man li ma wax démb ak bërki démb moom laay wax man jaxaw caali laa am am ma fenn fu dul fii euh, fa ma nekkoon ah, la ma fa nekke woon xam nañ ko ma nekkoon fa jàmbaar di fa liggéey liggéeyal leen liggéey bu rëy ci jaxaw caali mais bi ma demee ba sam ñi yéen ñi may àndal gisuma seen bopp ci loolu dama leen fa baax def développement ba dajeeg El Hadj Ousseynou Sène mu indi ma ci biir APR tombeek ak référendum ma ànd ak yéen nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg tous les présidents de groupement takk seen ndigg ñu àndandoo ba tey yàlla dimbale ñu ñu gagné Gabriel Dione ñaari centre yi nekk jaxaw aussi ñu am fa résultat yoo xam ne mosul a am bi bi bi affaire yi sosoo ba léegi résultat yi ñu fa am mosuñu ko am ànd ak suñu sœurs yi ñoom Khady Diagne ak ñeneen ñi nga xamante ne Khady bu ma ko tuddee rek yóbbaale nañu ci des je pense que sama frère Doucouré ak sama frère Ibrahima Ndiaye ñooñu mun ma leen fàtte parce que fu ma nekk ñi ngi sama wet te je pense que suñ ma galgaloon heure bi du ma si fii ñoom ni ma bàyyee man fi ma nekkoon ñëw fekk si waa APR ñoom noonu lañ bàyyee fi ñu nekkoon ki nekkoon PDS ki nekk m ñu ñëw ànd ak man ñuy liggéey pour que référendum bi le oui puisse passer a Diakhao Thialy te yàlla dimbali ñu ba Thialy ñu gañ ko mais li Abdou wax dëgg la yéen du ngeen liggéey lu rafet ba pare. keneen di ko jëriñoo kooku duñ ko nangu suñ ko defee mooy trahir nañ leen moo tax tey ñu woote fii yéen ñëpp ngeen ñëw leen président de groupement ñu xamal leen li xew xamal leen ni seen intérêt nañ ko défendre ba ci kanam président Macky Sall ñun lu ñu am yéen ñu ko gënal parce que fii lañu ñu am fii la ñu juddoo toll ba toll ni ñu toll kenn mësuñu fi duut baaraam dëgg ngor liggéey jaamu yàlla loolu la ñu xam. kon tey du ñu nangul li ngeen def muy muy lu rëy ci kanamu àdduna plus de 15 ans Gabriel Ndione kenn musu ko mën gagné 15 ans parti au pouvoir yor ko kenn mosu ko mën gagné mais yéen a ko dindi jóge fi ngeen nekkoon làqar ci ko jël ñëw teg ko ci loxo président Macky Sall kon loolu président war na ko xam te appel bi ñuy lancé mooy yéen jigéenu Jaxaw Caali dañuy bëgg président Macky Sall recevoir leen. xam ne bu leen dooleelee zone nord bi di ngeen ko teg ci loxoom donc pour bañ a guddal je pense que wax sax jafe na ma tey parce que sama xol moo sedd parce que nit ñun ay bañkat la ñu woon la ñu dëkk ay bañkat la ñu du ñu nangu mukk kenn di ñu marginaliser du ñu ànd ak yéen liggéey lu leer ñëpp àdduna teg seen bët benn nit jóg ne waaw man maa def nangam man maa def nangam kooku on va jamais l'accepter te nag. sàcc ndënd yomb na de mais foo ko tëggee jafe tey la presse est là wër leen ci biir fan yi y a que de groupement y a que des responsables qui sont tey su ñu woowoon ñëpp kenn du xat ci kër gi mais on naa appelé que les responsables kon xam leen ne jaxaw caalee ngi nii toog jaxaw caalee ngi nii am fulla jaxaw caalee ngi nii am fayda jaxaw caalee ñi nii gëm boppam li fi newoon daf fiy jóge ñun ñu topp ci ginnaaw kenn li ñu am fii la nekk ku ko soxla da ngay ñëw soo ñëwul ñu topp ñu liggéey suñu gox loolu lañ gëm lancé nañ nag appel le président de la république mun nañu déglu recevoir leen yéen jigéen ñi ak jeunes yi ñun bu mu ñu sax recevoir mais na recevoir jigéen ñi ak jeunes yi parce que ñii ñoo yor réew mi te réew buy avancé jigéen ak jeune moo koy avancé la ñun amatuñ lu ñuy prouver dans ce quartier là je pense que yéen la presse xam ngeen man sama itinéraire fu mu jaar j'ai pas besoin de me présenter ici mais li may ñaan daal mooy président na na gestu jigéenu jaxaw caali na recevoir jigéenu jaxaw caali ñu wax ko li ñu bëgg pour que sa quartier là nekk exemple dans la zone nord. dafa am ñu ko amee tey biir Thiès. ba gagné sax département bi parce que kilifa yëpp. dañu ñun jëmuñu fenn. loolu et du yéen rek. si biir Thiès. gaawu Siré Dia yi nee na Siré Dia gagné na fële. Mhm. gaawu diw mhm. ñëw na gagné ngeen fii. Mhm. Lamine Ndiaye na gagné na fële. non ñu leen boole yéen ñëpp leen gagné. département bi yooyu appel bi nu ngeen koy gérer. appel bi li ñu koy li koy gérer mooy il faut que ñu recadrer le débat parce que nit su jógee wax loo xam ne demewul noonu il faut que ñun ñu recadrer le teg ko fi mu war a tegu parce que les populations son là <laughs> tey suñu woowoon ñetti nit bu ngeen fi ñëwee du ngeen fi filmer dara du ngeen wax ak sax mais les gens ont montré que ñoom ñi ngi fii te lii ñoom la du keneen donc benn nit warul jël ñu on n'a pas dit que c'est nous seuls mais ñun aussi indi nañu suñu matt te cin li doon na baax de mais ñun bi ñu indee suñu matt cin li bi mu baax bi mu baax mosu ko baax cin bi cin bi doon na baax mais bi ñu indee sunu mat waaw ah, cin bi baax na baax ba musul baax dama ne te loolu yëpp nag loolu grâce à El Hadj Ousseynou Sène parce que moo wañaar sunu loxo delloo si waat ñu ci làng bawoon nañ politique mais moo wañaar sunu loxo delloo si waat kon loolu lii bu amee dañ ko koy sant gërëm ko parce que su dul woon moom tey ñun duñ toogaat fii di def politique parce que ku santul nit doo sant yàlla donc ñu ngi sant mbooloo mi tey ak ku ci ne am naa yéene dugg sa kër saafoon teg yow baalu la ak ñaanal la yàlla